sant Serigne Touba cant gu amul ab di ko jaarale ci ki ko fi nekkal di jëwriñam di Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan yàlla yàlla na ko sama borom yàggal fi te wéral ko te may ko kàttan ba li mu bëgg a liggéeyal lislaam liggéeyal ko maamam mu def ko ni mu ko bëgg te ñu ànd ko ak moom ñoo ngi siyaar tamit jullit yépp fii ci àddina bi yëpp fu jullit nekk ñoo ngi lay siyaare ci bés bi di la baal ax di la balu ax tey ñaan jàmm suñu boroom ak yërmandeem ak nungoom ci jaamu yàlla giñ ko jaamu ci weer wi ñu génn yàlla nungul ñu ko jégal ñu suñu ay rëcc rëcc yàggal ñu fi ñu di ko jaamu te indi jàmm daqal ñu balaa ak feebar ak musiba yi ne ci àddina bi yàlla mën na ko ci kattanam ak sañ-sañam ba yàlla nañu ko defal euh, Mamor di siyaare ñi ne jullit yi ne ci réew mi ak ñi ne ci bitim réew di siyaare particulièrement tamit taalibe Serigne Touba yi nga xam ni ñoo bokk yaakaar Serigne Touba <laughs> te nga gis ni ñu ñëwee ba ñu tàmbalee weeru koor wi ba nëga ku ci nekk ak fa toll ku ci ne ak sa yéene ku ci nekk ak sa jës ju rafet nga indi ko fii muy fii ak barabu fee di Touba ak bépp barab boo xam ne bii moomale nañ ko sëriñ bi ngir jàpp ci weer wi nga xam ni chahru ramadan ku ne xam na ni weeru sëriñ Touba la woon ci fonk gum ko fonk daan ko séentu daan ko séentu di ko waajal di ko di ko di ko di ko defal ay xasida ay tagg yu doy yu kawe yoo xam ne yi bëgg xiir nit ñi rek xam leen ni am nañu weer woo xam ne bokkul ak wenn weer ndax ngëneel yi nga xam ni moom la weer wi ëmb te sëriñ bi yéene ko ñépp moo taxoon noonu mu ko doon waajale lañu tàggat jàngal ñu ko ñu di ko waaj bi nga xamee ni wax nañu taafeer weer wi feeñ ñu nekk ca njàngaleem moomu ak waajtaay yoo mu ko doon waajal ci fexe ba jaamu yàlla yi nga xam ni dañuy dund weeru koor wi nekk ci santaane suñu boroom ñu man di leen jàppale ba ñu woore ko seen sago woore ko woor koo xam ne gii lépp loo xam ne lii bëgg nañ ko du ñu ni dañuy def lépp de waaye luñ ci man suñu kem kàttan ñu def ko ci ba weer gi ba woor wi gi ñu woor mën a nekk koor goo xam ne gi am nañ ko niñ ko bëggee woon loola mooy li nga xam ni moo fi xew moo xew ci pàkku sëriñ Touba yëpp xam ngeen fii barab bi ni mu daan demee nga xam ni bés bu nekk lu jige ci juróomi junniy nit dinañ fi dogo lu jige ci daanaka ñetti junniy nit dinañ fi naafila nga xam ni ñëpp ambassadeur yeeg taalibe yeeg jullit yi d'une manière générale góor ak jigéen nga xam ne ñu dund ko weer ñooñu nag bu ñu demee ba ci cat li ba nga xam ne tey jii wari nañu yàlla may jullit yépp feet ndax cant sant ga leen santoon ñu def ko nu mu ko bëggee jaadu na nga sant leen gërëm leen ñaan yàlla mi nga xam ne bii mooy borom santaane bi mooy borom pay gi mooy borom sañ-sañ bi yàlla na ñu yàlla nungul li ñu def ci weeru koor gi yal na ñu yàlla nungul bu amee ay rëcc rëcc ñuy ñaan suñu borom yal na ñu yàlla jéggal rëcc rëcc yi yàggal nag cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootuk sëñ Touba geeg sëñ Touba gépp mu yàgg ci liggéey bi nekk ci suñu kanam euh, dégg ngeen message bi nga xam ne bi moom la cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh mo cheikh Abdoul Xaadir indi <laughs> nga xam ne message bala boo xam ne bii sëriñ bi moo ko ko wax ni ko boo demee nang ko jottali jullit yi jottali ko taalibe yi boobu message mm-hmm. mat na mat goo xam ni commentaire amu ci ndax waxi sëñ Touba moom lenn bu fekkee ni bi am na lenn lu ciy tot lu ciy tegu mooy jëfe waaye amul commentaire ndax mat ja day mat mat goo xam ne gii mm-hmm. ka mu jóge mat gi mu mat ak tamit ki mu ko jaarale ci moom ba mu ñëw ba mu délivrer ñu ko ak ni mu ñu ko délivrer avec aisance noonu la tàbbee ci suñuy xol ba nga xam ni fii mu nekk jëfe rek nañ ko dégg nañ sàmm moom nañ ko topp ba pare jëfe ko buñ ko jëfee tamit ñu xam ne loolu suñu njariñ la mooy suñu ar njariñu fii di suñu njariñu alaxira gis nga ni mu ko imaginer ci def lu baax ak loo xam ne lii lu fasantikoo la nee na garabu jàmm ku ko suuxat bu màggee di nga yàkkamti toog ca ker ga bu dee garabu safaan boo ko suuxatee ba mu màgg boo sañoon danga koy gor ndax doo fa bëgg a toog ndaxte jàmm rek la nit war a man pas-pas bu am solo boo xam ne bii day jël nit ki yóbbu ko ci yàlla te it fii ñu ne li Sëriñ Tuubaa daan wax fii ñu ne muy àddina ak fële ñu jëm muy muy muy muy muy yomal xiyaam di àllaaxira nee na lu fi gën jàmm amu fi gisu ko fi fii ñu ne ci àddina ak feeñu ñu jëm ci àllaaxira nee na lu fa gën jàmm amu fa te nag jàmm bala nga koo am nga tegu ci yoon gàmm bala nga koo am nga tegu ci yoon tegu ci santaane suñu borom yi loo man nga di ko ci jëf dëgmal nag ko nag bañ a gestu lépp lu sama borom tere nga won ko ginnaaw won ko ginnaaw boo xam ne bii doo ko gestu mukk di di ko di di di di di di di ci teg sa bët loolu mooy jàngale mi nga xam ni dafa résumer lépp synthétiser lépp ku ci tegu ku nekk rek daal di xam ni njariñ li mooy sa jàmmi bopp parce que jàmm moom ku ko am ku ne xam ni moo gën leneen lu dul jàmm kon li nga xam ne muy dénkaane Cheikh Mouhamadul Mountakha mu jox ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mu indi ko délivré ñu ko. yàlla nañ ko dégg. buñ ko déggee yàlla nañu yàlla dimbali ci kattanam ga ak sañ-sañam ba ñu jëfe ko. buñ ko jëfee it nag la ca des moom luy ñëw ci suñu kanam la mooy dañ ciy am ak njariñ am njariñu biir am njariñu biti. kon maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa jumaa ji di gërëm ñi fi nekk service bi fi nekk nga xam ni fu juróomi junni nit di dajaloo di di di dogu bës bu ne. Hmm. xam nga ni ña ko saytu jàmbar lañu bés bu jëkk bi xàmmee wuñ ko ak bés bu mujj bi lañ doon def ci bés bu njëkk ba lu ko raw la ñu def ci bés bu mujj bi fee nga xam ni dañ ko defal imam yi nañ doon def ci bus bu njëkk bi moom la ñu def ba ci bés bu mujj bi ndax man falaa dogoo dem kon ñooñu kenn mënu leen fay ñu nekk ci njàng mi ak njàngale mi di yee nit ñi ci téere xam-xamu Sëriñ Tuubaa ñu nekk ci kuréel bi ci xaside yi muy kuréelu jëysun imaam yi nga xam ne ñoo ne ci naafila bi sëñ Abo Baraka mi jóge Touba. ak ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal ci ginnaawam lépp nekk ci jiitu Cheikh Mouhamadul Bachir mi imam bi ak sëñ Xaadim Lo rakam ñoo ngi leen di cant cant goo xam ne amul tàmbali am na tàmbali amul fu mu yem di sant nag ñi coordonné loolu lépp. nga xam ne Abdou Khadre sëñ Samba Diaw ñoom Cheikh Balla Samb Modou mbay Samb ñi nekk fii ci ci ci dëkk ci ci kuréel bi ak Aliou Niang sécurité ak Babacar mbay mi yor organisation bi ak nag jigéen ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu te te te te te kii jiite leen nu mu tuddati aji gàmm Diop ak ñi mu àndal nga xam ne ñooy ne ci yi guddi ak bëccëg mm. ak xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom tey baak ñi ngi seet bi fi nekk daayira xidma bi Masaliku ak ñi nga xam ne ñoo yor service de communication bu Masaliku Mor Dagg ak ñi mu àndal ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant. cey ñaan yàlla yàlla nañ ko teewe ay at yu bare bare bare ñi fi indi xéewal jàppale ñu nga xam ne président de la république yónnee na fi yónnee na fi Mbaye Ndiaye jàppale ñu ministre de l' intérieur di Antoine Félix Diome ca njaal benn ga ci digg bi ci fin bi yëpp mi ngi ñuy jàppale te moom bu ñu jàppalee bu amee kattan ba ñuy jàppale kattanu président de la république Macky Sall la. ndaxte bu ko ni woon bu ko def du ko def. kon ñoo nga koy sant di sant kilifaam tey ñaan yàlla yal na leen yàlla gën a jubale. yàlla jubale ko ak réew mi yëpp mooy président de la république li mu fa bëgg tamit muy réew mi am jàmm am koom-koom yàlla na ko defal ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah